dara du ma song sax benn agresseur mës na ma koj quatre heures du matin ma jógee Burkina Faso di ñibbi. Mhm. ma ñëw ba ci côté jëppal noonu rek mu yor yat après ma sentir ko mu ñëw ma bàyyi ba nga xam ne jege na ma rek ma wëlbati ko ne ko lan la mu ne ban heure a jot <laughs> après ma wax ko heure bi wan ko ginnaaw dem <laughs> donc Idrissa bi ñu waxtaanee. Mhm. mu ne ma ndegam da nga yor euh, sécurité ma ne ko ah j'ai mes amis yoo xam ne dañuy def sécurité bu amee occasion bi quoi après mu ne ma defal ma proposition. man ne ko non am na ñu ma woo nag naa la defaree proposition quoi nga xool bi ma ko defaree proposition bi li ma gën a marqué mooy day ne dafa ne ma dama yóbbu proposition bi ci Wade pour mu valider ko. c'est-à-dire bu ñu bu ñu koy dégg. mooy mooy voilà mooy cest à la lay fay yow ak. waaw ah. sa sa sa sa sa employé yi. mu ne dama koy yóbbu ci Wade pour mu valider ko. en ah, am na marché bu ñu ma proposé mais je préfère liggéey ak yéen parce que boobu dañoo bëggoon changement. après mu woote ni man naa ñëw ma ñëw ma defar benn facture li lijjante cachet yooyu yëpp signé te daal di kii. Mhm. daal di ko jox foofu la ñu commencé. jour boobu facture boobu ñaata la woon. <laughs> c' était cent mille francs par agent. cent mille par agent. oui il y pour la campagne. pour la campagne chaque jour. non non durant toute la campagne. mooy mooy seen marché. bu voilà boobu waaw ma jël gars yi nag bi ma jëlee gars yi nag comme ni ma daan def di ci jël jëluma ci. alors ma ma sélectionné nag ay jaagoor ma leen yóbboo foofu benn benn matin moom muy def fitness am rek ñenn ñi yoxosu ñëw na ko dañ la bëgg a gis quoi après mu paree fitness am mu laaj leen lan la ñu ne non vieux daf ñuy fay euh, daf ñu fay cent mille dañuy seet ndigam yow loolu nga négocier ak moom après mu ne ok naa leen tontu donc après bi dispositif bi yëpp ñëwee mu woo ma woo gars yi ñu toog. mu ne def mu ne ma vieux dafa am ñenn ñoo xam ne dañ fi ñëwoon tey ci suba di laaj ñaata laa négocier ak yow ma ne ko wax leen ñaata laa négocier ak yow mu wax ma ko man ne gars yi lu ma leen defee ñu ne ma effectivement xëy na loolu mooy première pas wu te pourtant mënoon naa ci euh, laaj yi dara donc euh, après ñu nekk foofu nag euh, ci campagne bi campagne boobu ci taraku staff donc bi ñu paree campagne bi nag ñu élire Me Abdoulaye Wade. ñu élire ko. mu nekk président de la république. ñu jóge Thiès ñëw dakaar après mu mu mu ñëw ci garage bi dajale ñu mu uuf benn doomam boo xam ne il a c' est un consultant maintenant jeexal na njàngam kon mm-hmm. si bi. Mm-hmm. après mu ne ma il m'a désigné comme ça il m'a dit je t'amène à la présidence donc peut-être man maay ki ñuy njëkk proposer liggéey présidence. d' ci maanuteem il m'a dit nga choisir ñaar dans le dispositif mais yu mel ni yow maanaam ñiy julli ainsi de suite mm. ainsi choisi quelqu'un Cheikh Ndiaye Cheikh Abdoulaye Ndiaye benn Cheikh oui waaw après j'ai dit à Cheikh toi aussi choisis un autre et il a choisi un autre donc loolu ci lañu ñu commencé di di di dem di liggéey ci présidence mais présidence bi ma fa duggee. Mhm. sama xel li mu njëkk a jàpp mooy un mois à avant may commencer liggéey Idriss Seck dama jóge côté principal du romb présidence gendarme bi interpellé ma ne ma fii kenn du fi dox jéggi dox fële ma jéggi un mois deux mois après ma dugg biir présidence ànd ak Idriss Seck yéeg ba étage mu mujj toog ci canapé bi alors bi ma toogee nii ma ne ma ne waaw man présidence laa ne après ma ñoppati sama bopp ma xool ndegam si je ne rêvais parce que léeg-léeg nga gént gént gu neex après c'est vrai mm-hmm. voilà c'est comme ça am fa accès libre waaw ah, di dem di dugg alors di dugg di génn pour vous dire dans la vie euh, grâce ki nga xamante ne moom mooy Idrissa Seck dugg nga bip dugal nañ le GIGN foofu très rapidement lan nga fa lan nga fa jàng par rapport ak li nga xamante ne moom mooy sa métier yow. jàng nañ fa protection mais d'une manière ramassée vite fait vite fait mhm. ok dañoo dem rek def sport def ay technique euh, de protection dem defi tir affaire yooyu mhm. après on est revenu ñu daal di ñu daal di ñu euh, ñu di ñu yóbbu à la BIP ñu man ñu nommé ma inspecteur principal de classe exceptionnelle mhm. nga am sa carte yor sa arme euh, di di liggéey en tant que garde corps avec le temps da ngay dugg ci dispositif bi di jàng en étant jeune ngay xool di jàng c'est ce qui a fait que euh, man euh, quand j'ai l'opportunité je voyage pour. gën a approfondir. ah oui ça c'est, ouais, parce que. Alors.